yaay ju baax saay boo nekkee ci naqar boo geesoo gis ko ku weddi laaj ko kii di Rama képp ku gëm ni sunu yaay yi kenn amul seen fay na ñëpp dugg ci commentaire yi mayel ma ay kër yu xonku cur ñu sargal suñu yaay képp ku gëm ne sa yaay baax na te saay boo nekkee ci naqar boo geesoo gis ko mayel ma ko kër yu xonku cur ci commentaire yi ñu sargal képp kuy yaay tey lay xam nag ndax bëgg ngeen seen yaay mbokk yi tey dama fas yéene leeral lu am solo ci série bile ndax kii di Rama li muy dund ci kër gi metti na lool mais dafa am loo xam ne nag bàyyi walan ci xel moom moo di Alassane di boroom këram malgré mu ngi koy teg lu metti mais ñoom ñaar dañoo dundoon lu neex ba bés ñot am lu ñëw yàqu ko te xamoo leen ni Alassane alalam bii ginnaaw bi mu ko amee kenn rek moo tax ginnaaw sunu borom moo di ay mbokk rama ñoo ko jàppale ba mu agsi fii mu agsi te lii li ko daal bëri na ay góor yi mu daal maanaam jéng nekk ak jigéen muy neex nekk ak jigéen muy metti ba xëy suba nga am dara fàtte ko te dañu ne képp ku fàtte lala fal sa folliku daf lay bett jamono bi nag ci jamono folli comme la nekk ndax maire boo xamante ne bu paree la maire boo xamante ne defante rek moo nekk ci xelam moo dugg ci kër gi série baa ngi door a neex dama ne xam nga lan la tey mu neex te ki nga xamante ne moom moo di yaay Rama nar naa neexal kër gi ndax kenn dootul tegati mettit Rama ñu bëri nag ñu ngi laajte fan la yaay Rama nekkoon jamono bi ñu koy attaqué ngir mu génne seeni yi bañ koy tëj ci néeg wi loolu dinaa ci ñëw mais laataa loolu abonné leen laal cloche notification ndax mbooleem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu ndax li mën nar a leeral mu bëri nar naa leeral frère Lamine bi fan la nar a mujjee ak nijaay bi bés bu xamee ni moo ëmbal jabaru jabaram nar naa leeral bés bu frère Lamine bi xamee ni yaayam complice la ci loolee mbir ndax ba léegi moom jàpp na ni doom ji moom moo ko jur te juru ko fan lañ ko nar a xamee bés bu accouché ndax diiran mu fi ñëw ak léegi jabar ji mënagul ëmb ba di fi accouché loolu la nar a leer jour accouchement ba c'est bés boobu dina mel ni tuq sa bënn saañ bëréer dinaa leen leeral tamit fan la Omar ak ki nga xamante ne moom moo di Adama di mujjee ndax dañuy nekkaat am déet <laughs> loolu question laa fay posé bu dee gëm nga ko bësal yi bu dee gëmoo ko bësal noo ma door a ñëw leeral lu am solo ca boobee Euh, série ndax li ma ci nar a leeral moo moo bëri lool lool lool tey nag dama bëgg gars yi abonné bu baax bés yemi sama yaram dafa tàng man leeral ñoom ñaar seen diggante fan la leeral ba leeral ki nga xamante ne moom moo di Banda fan la nar a mujjee ndax mu ngi toroxal borom këram muy neex mu ngi jàpp doomam mi ku nekk sa jabar mu teg ko métit jàpp ne loolu day wéy déedéet loo nekk nekk jigéen sa moroom jigéen loo ko def bés dina ñëw nga gis ko